dañoo dugg ci campagne électorale yàlla dogal tey ñu génn ñu installé ñu tey fii ci maire Colobane mu doon mbégte waaye ñu ciy sant yàlla bu baax a baax sant ci it conseil yi nga xam ne ñoom la ñu àndal ba tey ñu am résultat bi tey bi ñu ñëwee ñu samp ñu tey comme maire Colobane waaye ñu ànd ci it nag ak une équipe municipale boo xam ne moom lañ fas yéene liggéeyal première adjointe bi di madame Dégène Dieye euh, deuxième adjoint bi di Bamol Guissé troisième adjoint bi di Bousso Badiane équipe boobu ak conseillers yi nga xam ne ñoom la ñu fal ñu àndandoo ñoo fas yéene liggéeyal Colobane pour que Colobane mën a jëm ci kanam ñu mën koo dégg ci dëkk yi nga xam ne ñu ngi ci kaw ñu leen di dégg ci lu baax. Colobane comme ni ñu koy waxee feebaru màgget la euh, fépp dafay métti waaye am na ay priorité yoo xam ne bi ñuy jóg di def campagne euh, xamaloon nañu waa Colobane que ne am nañu quatre accès yoo xam ne ñeenti. Euh, mbir yoo xam ne euh, bëgg nañ ci tàmbali muy lu jëm ci wàllu wérgu yaram gi mooy lu jëm ci wàllu éducation bi njàng mi lu jëm ci wàllu ndox mi ak lu jëm ci wàllu courant bi maanaam fu doomu aadama nekk loolu war na la fa fekk kon loolu incha allah dinañu fexe ba loolu euh, nekk waaye pour ñu am loolu ci campagne bi ci politique bi famille yu bëri dañoo xawoon a xotteeku diggante yu yàqu dinañu fexe it ba loolu pour ñu mën a atteindre suñu kolobaan gu suqaliku bi ñu bëgg ñu euh, boole suñuy xol boole suñuy xalaat àndandoo doon benn ngir ñu mën a liggéey suñu kolobaan. ku maire sortant bi damay commencer par di ko sant ci euh, doxalin bi mu def tey ñëw fekkee bi nga xam ne ñu ngi ñuy installé ndax euh, wane na fa actu démocratique wane na fa it acte de grandeur loo xam ne ndaw ñi war nañoo gën a jàngaat ci moom félicité nañu ñaanal nañu. ñu nit ñoo ngi koy ñaanal mu am repos bu paisible bu dal maanaam noppaliku bu baax a baax a baax xam ne yéene ja mu amoon incha allah dañoo fas yéene taxaw ca pour loolu man caa continuer euh, ñuy profité également di ñaanal ñi nga xam ne ñoo ñu jiitu woon ñoo ñu jiitu ndax euh, amoon na fi ay président de conseil rural yoo xam ne ñoo fi jiitu woon njëkk liggéey liggéey bi yàlla jël na leen ñoo ngi leen di ñaanal yàlla xare leen aljanna euh, liggéey ba nga xam ne sumboon nañu ko moom la ñu fas yéenee àggale waaye ci kaw loolu il faut que ñunu doomu kolobaan yëpp ñu xam ne temps politique amoon na euh, fi mu ne ñoo ngi ci liggéey bi nañu boole xol yi euh, teggi wàllu euh, fii laa faroon ak fee laa faroon ñun ñëpp ñu àndandoo liggéey bokk ndey bokk baay ma tàllalaat leen loxo ngir ñu ànd liggéey suñu kolobaan ndax kolobaan doomu kolobaan yàlla da ko nattee loo xam ne am nañu xam-xam ci domaine yu ci nekk te bu fekkente ne ëllëg fexe nañ ba li kolobaan am yëpp ñu jariñoo ko ci biir kolobaan dina doon suñu njariñ ñi nekk biir kolobaan ak ñi nekk bitim réew si am ñëpp ñoo ngi leen di tàllal loxo waaye rawatina waa kujje politique bi nga xam ne ñoom lañu doon xëccoo ñu xam ne kolobaan rek moo gañe ndax ñëpp ñun ñëpp njabootu président Macky Sall lañ kon yaakaar naa ne war na yomb pour que ñu liggéey suñu kolobaan. Euh, santiment de satisfaction euh, d'être investi aujourd'hui maire de la commune de koloban Euh, c'est un jour historique, un moment historique pour Colobane et pour euh, le département de Gossas. Euh, Colobane vient d'ouvrir une nouvelle page, une page qui va euh, s'écrire avec une équipe municipale jeune, ambitieuse, qui a la volonté de faire émerger Colobane. Nous avons battu campagne tout au long de Euh, la campagne électorale autour d'un programme euh, commune de Koloban Sunuyité. Et ce programme, nous comptons euh, mettre en œuvre euh, avec cette équipe municipale composée d'hommes et de femmes engagés pour l'émergence de la commune de Koloban. Aujourd'hui, nous venons d'être installés avec l'équipe municipale, le bureau municipal composé de Sorne, Madame Degendje, Euh, première adjointe euh, monsieur Bamol Guissé euh, premier adjoint et madame Bousso Badiane Kane qui est troisième adjointe au maire. Donc avec cette, ce bureau municipal et l'ensemble des conseillers, nous comptons en tout cas mettre Koloban sur les rampes du développement. Koloban nouveau qui va euh, euh, se bâtir autour des quatre accès que nous avions émis dans notre programme à savoir l'accès à la santé, l'accès à l'électricité, l'accès à l'eau et l'accès à l'éducation. Mais un Sénégal pour un développement territorial qui va se faire également autour d'une inclusion sociale, c'est-à-dire autour d'un coloban où les cœurs, euh, tout le monde, euh, les femmes, les partis politiques, en tout cas toutes sensibilités confondues, euh, dans la main, que nous puissions travailler pour le développement de Koloban. Le problème de Koloban, c'est un problème global. les urgences, c'est euh, quatre accès. C'est les urgences. Euh, mais d'abord, comme on l'a dit tout à l'heure, lors de cette campagne, vous savez, Koloban constitue une famille. Et euh, lors de la campagne électorale, nous avons eu à avoir des familles disloquées. Nous avons eu à avoir des amitiés disloquées. En tout cas, nous allons œuvrer à ce que, au moins au niveau de Colobane, que nous retrouvions notre euh, amitié, que nous retrouvions au moins cette famille qui existait pour qu'ensemble nous puissions travailler pour le développement de Colobane. Je pense qu'on euh, l'a dit également tout à l'heure au niveau de la salle, euh, il euh, a le temps de la politique politicienne, il a le temps également du travail. Aujourd'hui, nous étions euh, quatre entités à, euh, en tout cas, pour cette élection. je à fait que les deux on eu des conseillers, à savoir le Benno Bokuyakar et Andonaoule Soukhali Sunugo. Il se trouve que Benno Bokuyakar, euh, la personne morale, c'est le président de la République Macky Sall. Mais il se trouve que nous aussi, nous faisons partie de cette même famille. Donc c'est nous dans nous. Cela veut dire qu'il n'y pas d'adversaire politique pure, euh, proprement parler, parce que nous faisons partie de la famille du président de la République. Ce qui importe maintenant pour les conseillers qui sont là, qu'ils sachent aujourd'hui que ce n'est plus une histoire de Andou Naoulé ou Benno Bokyakar, mais c'est une histoire de Koloban. C'est Koloban qui a besoin de ses fils qui doivent travailler pour Koloban et que demain, qu'on puisse avoir des résultats palpables. Parce que nous sommes attendus sur en tout cas tous les secteurs, dans tous les domaines, Colobane est attendu.